Yaya Jammeh moom mooy dooleel Ousmane Sonko wax leen ko mu leer Yaya Jammeh son candidat c'est Ousmane Sonko man Lamine Diop maa ko wax Ousmane Sonko nag bu ko weddee na ñëw mu toog ma toog na ñëw mu toog ma toog def fi lu ma fi deful def fi lu ma fi deful Ousmane Sonko kenn ma soo gis mu jël ay élèves man dama jël ay élèves ba doy ay at a ngi ñu ma di ko def Ousmane Sonko kenn mosu gis muy taal ay làmpa xëcc ay ndox si ay gox te man dama ko def kon amul luy tax mu bañ a toog ak man te leader la may leader daa def élection ma def élection problème bi du moo Macky Sall la moo Lamine Diop la na ñëw ñu toog ma toog ma génne sama nit ñi xam lan moo tax ma wax li ma wax Gambie dem naa ko ña fa représenté yaa jàmme gis naa leen fii si Sénégal ñi fi représenté yaa jàmme toog nax ñoom c'est des preuves muy sama téléphone bi te li may wax ma si saala yaay ndeer su fekkente ne moom dafa wet dama yónnee cessation wala mu ñëw ñu toog table ma génne les preuves Yaya Jammeh moo ne si ginnaaw man amul lu ma warul amul lu ma waroon si Gàmbi amul alal jun ma wanul si gàpp amul alal jun ma wanul si fii fii si Sénégal Ousmane Sonko nee na amul xaalis gis ngeen li muy dawal ay Lexus fan la jëlee li muy dundee fan la jëlee oto yu mu yor di nga dawal balaa may day ñu naan waa Pastef dañuy corrigé waaye bu leen ñu fontoo am na loo xam ne xel daka nangu Ousmane Sonko ba mu fi mu duggee léegi ñaata personne ñoo fi dee. waaye nit ki di leen tëggaloo ay ci ngeen di tëgg nit ñi dee ngeen na doo leen arrêté bu subaa ngeen tëggaat il faut ñu arrêté yooyu si Ousmane Sonko leen mas gis président ku ne nga bëgg président naan dama demoon sur ak dem naa fa defuma def naa moom lañ ko mas a gis Ousmane Sonko moo coopté woon nekk inspecteur en domaine. pendant 15 ans mu nekk fa kenn dégg ko mu wax waaye léegi lan moo sore Ousmane Sonko na ñëpp nit ñu xool jamono ya problème yay am Casamance ba ko soldaar yi nangoo xool leen ko ak méngale ko ak bi Ousmane ko di déclenché ñun doxul nag ñun ay tëdd ñun yéen li ngeen ñàkk yëpp Macky Sall moo leen ko andi li ñu ñàkk ñun senegal lépp président Macky Sall moo ñu ko andi. dem na deux fois final Coupe d'Afrique andi leen a coupe dégg nga ko ma sax masul leen kaa am ñu waxante dëgg moo leen andil stade boo xam ne masul leen kaa gis muy si football andi leen ak stade fële bu mbër yi nekk sama copain ñoom ma maya aussi ba eh, eh, kii eh, fi ñuy baskette stade bi ñuy baskette arena loolu da ngeen ko mas a am andi leen ak terre doon wax naan Ousmane Sonko bi taxaw ne terre bu bu si Macky Sall liggéey dem jam ñaajo santatu mu Sonko kon léegi Adji Sarr la moo ko wax ay waxam la kon Adji Sarr nan us nan wooye Ousmane Sonko Adji Sarr parce que moo ko waxoon beneen bi may wax mooy président Macky Sall li may wax nii moom yow yaa ko moom mooy ñun amuñu ay maire ñun waa Tëngéej amuñu ay maire de suñuy maire ñoo gën ay yabaate ci Sénégal te ngeen jëgi nii maire yi fi nekk faye kooguru faye kooguru wëlbatikuwaat naan état moo nu war a jox nangam moo bloqué suñu ay fonds état bloqué wul dara baara gee ngi nii yëmbal la ne opposant la nan la def ba réussir yëmbal sans sable nan la def bay fay salaire sans problème Barthélémy Dias mu ngi nii ba mu nekkee maire Sicap avant muy dem maire Dakar est-ce que kenn mas na kaa dégg ci problème mu salaire pourtant opposant soo ko sim moom moom moo nu gën a yàq 1948 ba léegi soo ko sim nekk fi dégg naa Aba Thiagne di ko way sama boobu maa ngi koy nuyu. 1948 ba léegi Sococim bandi wi kii wax na dëgg de mais Sococim yàpp nañu ñun waa Tëngéej yàpp boo xam ne lu ko neex def Sococim feebar bi mu ñu andil si biir Tëngéej kenn xamul na la lim fi rey si ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll waa Guy Murit waa Cëwleen waa Arafat waa Bargny gis naa waa Bargny génn di manifester c'est normal te ñun dina leen ci jàppale soo ko sim xar na suñu ay kër soo ko sim andil nañu ay problème du poste du poste de santé du du tali du dara lu soo ko sim jariñ dëkk bi dara la muy seq ak maire ñoom la concerné la muy seq ak état ñoom la concerné mais ñun askan wi si boppam kookuy sëqat bu seeru suuf si mu dégg jàpp ñun askan wi si boppam ñun si boppam ñun ñooy jóg Sococim lan ko mayoon du ko ko may Sococim li ko war si dëkk bi dina ko def par A ou B Sococim duñ may dara mais boo nag nga xam loolu may nan la trois semaines ñu ngi koy réunion boobu ba léegi dama la koy wax loo yëgul yéen waa Sococim comme kenn mënu leen a wax dara ñun ñooy fajal suñu boppam may nañ leen trois semaines ngeen woo nit ñi wax ak ñoom soo leen ko deful dinañ bloqué seen i porte oto du dugg oto du génn oto du dugg oto du génn parce que li leen war ak dëkk bi di ngeen ko def moomu leen ñu kon maa ngi dugal suma frère boo xamante ne dafa amoon mouvement non à la troisième mandat la waxoon waaye ma waxtaan ak moom fekk ko Mali ànd ak moom tournée dem Burkina dem fu ne dakkal ko biir avion ñu ànd ñu xool prix dëkk yi la ñuy ak li ñu politiciens yi defi di ñu naxe mu am si lu ko leer nañ mu xam ne président de la République mu ngi liggéey si la ñëw ne ma mon frère man lépp lu ma jàppoon bàyyi naa ko comme moom mu ngi fi dañ koy bàyyi mu wax ndax nettali si jëmmuñu borom. man dama yoroon mouvement boo xamante ne bii mu ngi tudd mouvement de la renaissance et de démocratie non au troisième mandat man maa initié woon loolu doon président bi mais bi ma waxtaanee ak saway ñu ànd dugg un peu partout en Afrique ma xool démocratie bii am Sénégal ak démocratie bii am ci yeneen pays africain yi bi ma ko méngalee xam naa ne démocratie am na Sénégal kon tey sama mouvement bobu nga xamné won man mané won non au troisième mandat man mané monsieur le président de la république di Macky Sall nangul na la sa troisième mandat parce que gis na né démocratie am na fi gis naa ne subventionné nga dund bi té dina ko confirmer légui ni ma koy confirmer xam ngeen moy lan bala may story damay wo kuñu wax Kora ak Gànn Mbuub dañuy ñëw taxaw ma confirmer leen nangul na président Macky Sall troisième mandat tay Sénégal gépp dinañ xam ne Macky Sall dina am troisième mandat parce que ànd na ak jeunesse su Tëngéej ànd na ak monsieur le président Lamine Diop ki nga xam ne Tëngéej moom la jox boppam. man maa ne woon non au troisième mandat man Talla Ndong maa ne woon non au troisième mandat. di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne yàlla ñu yàlla defal jàmm. di sant journaliste yi di leen jéggalu si temps bi gudd di leen ma masaw coono di sant di gërëm suñu mbokk yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di sant di ñu jéere lébu yi commencé si ndey jàmbur bàyyi jaraaf laman wàggeen wan ak iliman set ak suma grand frère muy Béni Ndiaye Babacar Ndiaye nekk nit ku sonn ci ñun macha allah nekk koo xam ne ba ma jógee ba léegi mu ngi sama ginnaw mu ngi sama kanam ak suñu grand père suñu papa muy atoman ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm waye di sant aussi ko xamne depuis ba ñu joggé ba tey muy suñu papa Alassane Mangara depuis di jóg ba léegi muy suba muy ngoon muy guddi muy bëccëg mu ngeeg ñun kon père Alou ñu ngi lay sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñëpp di gërëm suma soxna di gërëm aussi Daba Ndiaye ak jigéen ñëpp maa ngi leen di bu baax di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm ak sumay frère sumay doomu baay ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah